bokk na ci xéewal yàlla yi jëm ci ay jaamam da leen a defal jamonoy topp yàlla yoo xam ne saabu agsee seeni tuyaaba day gën a yokk di gën a bari ba tax na jullit ñu bari saabu bu amee dañuy njëkkante ngir jege seen borom bokk na ci jamono yi ma lay wax fan yi nu man di fukki fan yi njëkk ci weru tabaski ci màggaayu fan yi bokk jullit yàlla def ci waat ci alquraanul karim yàlla nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam xabaar nañu ni fan yii moo gën ci mbooleem fanu adduna yi yonent bi nee na fan yi gën ci fani adduna yi mooy fukki fan yii maanaam fukki fan yi njëkk ci weeru tabas abu usmaan an nahdi nee na saxaaba yi day daan nañu màggal ñetti fukk fukki fan yi mujj ci weeru koor ak fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski ak fukki fan yi njëkk ci weeru tamxarit waaw fukki fan yi naka lañ koy waajalee bokkum jullit jëlee nañ ci ibnu abbas yàlla na ko yàlla gërëm nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na amul yenn fan yoo xam ne jëf ci lu baax moo gënal yàlla ci fan yi nu toll maanaam fukki fan yi ci tabaski saxaaba yi ni ko yow yonentab yàlla bi doonte sax jihaad la ci yoonu yàlla mu ni leen donte jihaad la sax ci yoonu yàlla ah lu dul koo xam ni génn na dem jihaad ji yóbbaale kanam ak alalam te dara dellusi si jëf ju baax nag buñ ko waxee day làmboog mboolem lépp luy ak jaamu yàlla ci woor ci julli ci aj ci tudd yàlla ci màggal yàlla ci jàng alquraanul karim ak dimbali say bokki jullit li nu ci gën a miin nag ci fan yi mooy woor waaye nag ba mu des fukkeelu fan ba loolu dañ koo tere kenn ci soxna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na woor juróom ñeenti fan yi njëkk ci weru tabaski te xam ngeen ne yow mu arafa képp ko ko woor dees na la jéggal ñaari ati bàkkaar bokk na ci fan yi ak tudd yàlla ak di ko màggal yàlla nee na taala ويذكر اسم الله في أيام kon yàllaa ngi wax fukki fan yi bokk na ca nag aj Makka te mooy li ci gën ci fukki fan yi mboolem luñ ciy def yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na aj gu ñu nangu amulu pay lu dul aljanna bokk na ca rendi xarum tabaski képp koo xam ne namm naa rendi tabaski yonent bi alayhi solaatu salaam tere na ko muy dagg dara ci karawam wala dara ci ay weyam soo xamee ni weer wi feeñ na ba keroog muy rendi am xaram يا ربي واجعل لنا عيدا يجمعنا في جنة الخلد يا ذا الفضل يا ملك